tomb yu yaatu ñu xamle na it sàmm ci cëri doomu adama dafa bokk ci lislaam taamu ndax cër yi dafay xéewalu yàlla ci jaam bi ndax cër bu ci dem rek day mel day ci ci misaal day mel mënutoon ñàkk ndax cër boo ci rek mu jur lay ay jafe ci sa dund kon cër yi xéewalu yàlla la ci jaam bi war a nag xër moom jàmm bi ci jëfandikoo cër yooyu ci lu koy jariñ ci addunaam ak lu koy jariñ ci àllaxiram te loolu moom fexe ba tàmmal leen tàmmal cër yi aw yiw jëf yiw jëf ju baax ngir ëllëg ñu man koo seere ci kanamu yàlla ci lu baax loole lam ci doon jëf ak lam ci doon fàggu ci ay rafet rafet ndax ëllëg làmmiñam dana ko seere ci lim daa wax lam ca daa wax ci lu baax ay bëtam seere ko ca lam ca daa jàkkaarlu daa ko xool ci lu yàlla gërëm loxoom seere ko ci lum ci daa jëf ci aw yiw ak rafetal tànkam seere ko ci lum daa dox jëm ca aw yiw ak jëfi njëkk kon day jaadu kon jàmm bi xër ci téye yooyu yi ba dox seen diggante ak lépp lu ñaaw ak lépp lu xaram wattandi ko ëllëg cër yooyu di xuloo ak moom wala moom muy xuloo ak cër yi ndax ëllëg cër yi dañ seere jaam bi di ko waxal lum daa jëf lu dul noona mu mujjul werante ak ñoom di xuloo ñoom ca loola kon nag lay tax nag ëllëg xuloo boobu sa diggas cër yi du am mooy nga fexe ba sàmm leen dox seen diggante ak yooyu ju tudd yëpp borom subhanahu wa taala nee na bis penc bis bi nga xam ne dañuy kaste gémmiñ yi mooy dañ leen di tëj yàlla nu wax loo nag seeni loxo seeni tànk di leen seere ak seeni cër ca lañ daan fàggu al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun waxe ne bis ba nga xam ne dañ danañ pang danañ dañ dañ dañ dañ màng noonu yàlla jëme leen sawara lees bee temps la ci mbugalum yàlla bañ dikkee seeni nopp di leen seere seeni bët di leen seere ca lañu doon gis seeni cër di leen seere ca doon jëf ñuy waxa seen cër yooye naan leen lu tax ngeen dinu seere ñu ne ko ah yàlla mi nga xam ne moo wax loolu lépp lu wax kan moo nu wax loo te mooy ki leen bind ba ngeen amagut ba tax ngeen am te ëllëg ci moom ngeen di dellu siwaat te bay ni koy def day nëbbu leen ko woon nëbbu leen bàyyi woon leen xel ne seen seeni seen i dégg seen i gis seen seen jër yëpp dañ leen seere waaye ngeen jotoon ci seen borom ne yàlla kat xamul lu bari ci li ngeen di jëf neen seen jot loolee ngeen jotoon rek ci seen borom mooy leen alak tey bu jural leen pertanga ji yawma yuhsharu a'daa'u llaahi fahum yus'aruun ilaa n-naari fahum yus'aruun hattaa idhaa maa jaa'uuhaa shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluuduhum bimaa kaanuu ya'maluun wa qaaluu li juluudihim limaa shahidtum 'alaynaa qaaluu antaqanaa llaahu lazii antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'uun maa kuntum tastatirun an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum bi rabbikum ardeekum fa asbahtum min al kon loolu doon lu mat a xel eh, sàmm itam ci ci cër yi mi ngi ci say wax sàmm say kàddu moytu jépp wax ju ñaaw wala wax ju bon boroomu sàmm du wax mukk baat bu suufee baat bu ñaaw baat buñ koy xeebe du saaga du xaste du yëjjee du wax lu amut du waxi neen kàddoon def nekk kàddu gu mucc ci jépp ayib ay waxam nekk wax ju neex wax ju rafet muy tànn baat yi muy jëfandikoo ci xool baat yi ci gën a rafet yan jaase lépp lu muy wax day tànn baat yi ci gën a mu di ko jëfandikoo wax xam ne ay waxam waxam ndax nit waxam dana seere ak sàmmam ni ko soo ko soo mu wax rek ca ay waxam mën nga ca xame ba xam kii ku sàmmalam ku sàmmuut ni ko ku ñu wax Yunus ibnu Ubayd Ubayd rahimahullah yàlla ko yàlla yërëm dafa waxoon innaka la ta'rifu wara ar rajuli fi kalaamihi man ngaa xame sàmmug nit ci ay waxam rek kon ñu xam ne kon kàddu kon lu mat a sàmm la bu xaar yi ak Muslim ko ci soloon jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci Abi Hurayra mu ne yonente bi sallallahu alayhi wax na ne ku gëm yàlla gëm bis penc nay wax aw yiw te noppi man kaan yu'min billaahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut kon da wax aw yiw te noppi fu aw yiw jeexe na na fa sa kàddu yam buxaari yu solo na ci xam ba tey la ci abi hurayra yal na yàlla gërëm mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ab jaam dana wax kàddu goo xam ne dana cee yàqi merum yàlla subhanahu wa taala te du ca bàyyi xel ca goo googee te dana ca tab dana ca tabbee ca kàmbug jahannam ëllëg ci benn baat innal abda la yatakallamu bil kalimati min suqtillah la yulqi laha baalan yahwi fi jahannam ci beneen waay boo xam ne ñëw na ci eh, ñaari saxiixa yëpp abi hurayra solo ko mu ne dégg na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ab jaam dana wax baat boo xam ne du ca bàyyi xel du ca ràññele waa daa ca tarxiis ci kàmbu sawara lu gën a sori diggante pengook ak inna al abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi nnaari ab'ad ma bayna al masriqi kon loolu doon lu mat a bàyyi xel kon kaddu lu mat a sàmm la lu mat a rafetal kon nag anak sàmm ci nga xam dafay boyal nag dafay boyal googub làmmiñam dafay boyal laabug làmmiñam lu neex wax di tudd baat yi a ñaaw baat yi salte am na ne seen kàddu seen lammiñ kàddu gu baax du ca génn mukk saaga wax lu bon lu mel noon rek anak sàmm ca ca kooka jaam bi war a ko baax a baax ci ay ci ay kàddoom ak i waxam ndax suñu borom kan nee na amul lenn lu jaam wax lu may am na ñaari malaaka yu seere di ko bind ngi raqib ak atid raqib ak atid maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dellu na moo dañoo jortu ne li nuy wax dañ ko dul dégg nun yàlla la ñuy déeyante dañ ko dañ ko dul dégg deewal lay sunu ndey sunu sunu ndawa nga fa ñoom te dañ koy bind am yaxsibun anna la nasmau sirrahum wa najwahum bala wa rusulna wa rusulna ladayhim yaktubun wala sàmm ci ay jikkoom moytu jépp jikko joo xam ne jikko ju ñaaw la jikko ju ñu ŋàññi la boroomu sàmm du doon ku may boroomi teggin du doon ku may ko jikkowoo jépp jikko ju rafet doon ko sori wépp melokaan wu ñaaw day doon ko xam du namm ca sàmm googe lu may gërëm loo ci yàlla subhanahu wa taala ak ànd ak nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ëllëg fii jël nañ ci jaabir ibnu na radi yàlla na ko yàlla gërëm mu ne yonente bi sallallahu alayhi wax na ne ki ma gënal ci yen te mooy ki may ciy gën a jege ab dëkkuwaay mooy mooy ki ma gën a jege ab jotaay bis penc mooy ñi gën a rafet ci yéen jikko waaye ñi ma gën a bañ ci yéen te mooy ñi may gën a sori ëllëg barab yomal qiyaama mooy borom wax yu bari yi wax na ne fu toll mi ngay waaj waaj rek tabax ja dara du ci am bari wax rek tabax ja dara du ci am njariñ ak koo xam ne dafay puukari wa ci ay waxam ci misaal da ngaa ne ci biiru nit xam nañ kenn déggu fa arab nga dee na waxi arab ngir ba na dégg naa ko rek wala de wax ñoo xam ne xamuñu dara ci tubaab ngay wax di ci jaxase ba tubaab yu baree baree bari jublu ca tiitaru wala ba ki nga xam ne dafay yëkkati kàddoom te lépp nag mën a yëkkati boppam ak ak ak fuñ ko fuñ ko tag rek la ci jublu loolu la wax ne inna man ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyama ahasinukum axlaqa wa inna abgadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyama atharsarun wal mutashaddiqun wal mutafayqihun qaalu ya rasulallah qad alimna qad alimna atharsarun wal mutashaddiqun fama al mutafayqihuun xaal al mutakabbiruun ñetti baat yooyu soréewuñ tirmidi yi moo génne xadis boobu ñoo ni ci saxiixul buxaari yi jël ci abdullahi ibni amr mu ne yonente bi musa nekk musa def lu ñaaw musu ko digle musu ko musu musu musu koo kafe mus mus mus musu ko def musu ko def lu musu musu musu jëf lu ci jëm itam leen lu ñaaw ndax dadaa wax ne ñi gën ci yéen mooy ñi ci gën rafet njikko lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam fahishan wala mutafahisha wa innahu kaana yaqul inna xiyaarakum ahasinukum axlaqa ma am nag yeneen melokaan ci eh, jikkoy sàmm bu ne jikkoy sàmm nag mooy jikko ju màgg ji nga xam ne nit ki ci lay yëkkatikoo waa ci lay sore itam jépp jikko joo xam ne ju nga ju ngàññ la ak melokaan wu rafetut saa bu sàmm googu dàqoo nag ci aw xeet sàmm saa bu fàddoo ci dund gi nga xam doomu aadama faati fan lay sakkoo addunaam an nan la koy sakkoo ci wan yoon lay wuteen ab dundam ci ban xaal la koy sàkkoo eh, ci ban xaal ci gan anam lay sàkko bànneexam ci àdduna nga xam ne wut day tëñëx tëñëxi rek xamul fu muy teg tànkam saabu bu sàmm googu doo ci dund gi jikko yi daal di ñaaw nga xam ne doo gis lu may kuy kuy jar rek kay jaay ma ngi cee ca bokkut ko ko ko jëflante nit yaa ngi koy war ci jëflante yi ger ak lu ne mel tooñ noono eh, xañ nit xàqam eh, ak bàyyi sa waru sa yëpp ak jalgati dari nit ñi yooyu yëpp ak ak bakkan yi ak alal yëpp mi ngi juddoo ci sam dàqu goo xam ne sàmm da ko dàqu ci ak dund bu dàqu ci dund gi rek yooyu rek mooy mën a xew ak ak yeneen yoo xam ne mën su ko wax ni ko war sàmm itam ci fexe ba bañ a tàbbi ci lépp loo xam ne lu ko njariñ la dafa bokk ci sàmm nit ki jullit bi sori lu ko amuloon njariñ rawatin lu yoonam nekkut bañ a tàbbi ci loo xam da loo xam ne mbirum keneen la lu may tàbbi nga ca tàbbi da nga caa jubloo def aw yiw baa nga jublu caa yewinal ak bañ a gëstu e, mbootum nit ñi di ko jëm a xam mbootum keneen nga di ko gësu ko jéem a xam nit ki naka lay mën a yëre di jéem a xam secret nit ki ci teg portable nga jël ko ndànk di déglu ay ay ay ay wakaalam lu xaraam la wala nit ki di toog ci jataay boo xam ne la muy waxtaan di bëgg ko dégg nga nga nga di ko may may bëgg xam la ñuy wax loolu lépp amu solo la am solo mooy fexe ba bàyyi xel sa sa sa sa sikkas bopp ndax ku nekk am nga loolu doy sëkk ab liggéey ci yéenal ko jël na ci abi Hurayra mu wax ne yontu sallam ne na bokk na ci rafetel islaami nit lépp lu ko amul njariñ mu ba ko min xusni islaami mar'i tarkuhu maa laa ya'niihi Tirmisi ak Ibnu Maaja ko ci solo na ko kon lépp lu ko amul njariñ soxalu ko amu ca benn maslaha eh, na na na ca génn ndax waxtu woo soxlawoo li la amulul njariñ la la amal njariñ daal daal lay raw boo nekkee ci la njariñ la la amal njariñ rëcc la yàlla sunu moom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu wa rahmatullahi taala wa barakaatu jooju jotewul ak

ashhadu anna muhammadan rasulullah الحمد لله المنعم المنفرد بالإيجاد الممد لأهل الإيمان بإيمانهم أي إمداد وفرع منه نعما لا تنحصر ولا تدخل تحت أعداد غاية محصولاتها الفوز بالخلود في الجنان والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات نادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادا وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعدهم من أهل التوفيق أما بعد فيا, أيها فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة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 دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم وهاروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة نبيه الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ولا سيما هذه الصلوات التي تدعون لها فهبوها أكبر من أخواتها وأجلها لأن مقامها في العبادات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 الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقاه وتقدس وتنزه في أثليته فلا عين تراه حكم بحكمه فلا معق في خلقه فلا معقب لحكمه ولا راد لما قضاه قسم الأرزاق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 واعلموا يا عباد الله أن من ذكر الله ذكره وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واحذروا زمانكم هذا فإنه زمان خل خيره وكثر, وكثر بلاه واستغل كل منا بطلب دنياه وغفل الغافلون عن الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله وصار الدين غريبا كما كان مبتدا ووا أسفا وقلة حيلتا في يوم تظهر فيه الفضائح وتشهد علينا الجوارح والحاكم هو الله yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah sadaqallahu al-azim yaxfirullahu lana wa lakum allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar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 Allah Allah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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله assalaamu aleykum asalaam